jëm ci wàllu quartier bi donc muy éclairage public bi vraiment ñu ngi féliciter délégué ak équipe bi parce que chaque fois bu lamp yi fayee dinañ ñu woo parce que boo leen ñu woowul aussi duñ ko yëg parce que parcelle vingt quartier la c' douze mille parcelles dafa rëy dafa yaatu c' est vrai que man fii sama yoon la saa yu may dem Dakar fii laay jaan mais c' est pas une raison pour mu mën a xam chaque fois ndax lamp yi tàkk na wala fay na mais yéen ñi fi nekk conseil ak waa quartier bi saa yu amee problème euh, éclairage public ngeen yëgal ñu ko day tax Euh, euh, intervention yi gën a gaaw am nañu équipe mobile yu mën a déplacé wu 24 heures sur 24 au maximum 48 heures saa yu fi ñëwee dinañu ànd ak Moussa Gueye xool fan moo fay ñu réparé ko. donc Seck mi ngi fi Aziz Seck ak Aziz Diallo ñoom ñaare ay éléments yu am solo lañu bu ñuy dem dinañ fi bàyyi seen numéro ak comité bi comme ça ñu leen di mën a woo sax directement boo leen wooyee ci turu maire dinañ ñëw def li ñu war a def amuñu problème boobu. donc lu ci des renforcement solaire bi la mi ngi ñëw bu ñëwee dinañ ko def incha allah. pavage bi aussi incha allah dinañ ko tàmbali weer bi di ñëw début décembre ñu ngi defar atelier yi fële ci ginnaaw maire bi dinañu démarrer am na ay ruelle parcelle fii ci 26 yu ci bokk dinañ ko ci boole ak moske ah incha allah mais début décembre bi ñu ngi ci xale yi aussi ñu ngi wax léegi wàllu mbëkk mi ñu wax leen soo métier amul soo métier amul nit dafa am fooy jàpp di fa gor boo gisee lu gën nga bàyyi loolu nga defi leneen Espagne ay chômeur rek a fa nekk États-Unis ay chômeur rek a fa nekk ci pandémie bi rek am nañ plus de 30 millions de chômeurs français ngi ne sonn nañu maire yaa ngi woote waxuma la sax chômage mais lekk sax amatuñ ko France bi nga xam ne ñun mooy suñu première partenaire financier ñun ñaa ngi xiif commencé nañu xiif dem moo ne nañ juróomi dëkk yoo xam ne maire yaa ngi woote wàllu donc jamono ji ñuy dund nii solution bi du dem jëli ay gaal dafa yomb gaay yi ci biir mbas mi la am ñu am chance ñu ne France ak itali Espagne ak Italie ñu ngi maye ay kayit parce que feebar bi daf leen sonal ñëpp xam nañu Espagne sonoon nañ ci feebar bi Italie sonoon nañu amatuñ ñu nekk ci tool bi jamono jooju nag géej gi dafa daloon géej gi boobu entre mai juin juillet ba ut géej gi dafa daloon boo fi jógee ñaari fan nga yegg Espagne boo jógee Maroc benn fan 30 minutes nga yegg Espagne ñi njëkk a dem ci gaal yi période boobu kenn yëgul leen ay junni nit lañu ñoo ñoo woote ne leen ñëw leen dëkk nañu am nañu kayit gaa yi def ko trafic loolu mooy dëgg bi il faut ñu wax dëgg bi gaa yi def ko trafic di woote ku nekk ne di woote yegg naa yegg naa koñ bu nekk boo dem gis ay nit ñu ne yegg nañu affaire bi bari ñu naan fii cinquante personne dem nañ yegg nañu fii juróom fukk surtout côte bi nag Mbour Jifeer jëm Ndar ñëpp dem malheureusement bi nawet bi jeexee septembre jëm léegi géej gi yëngu loolu mooy dëgg bi parce que période hiver la géej bi day changé climat bi day changé moo tax ñu bëri réer ñi seen gaal këppu mais ñi njëkk a dem diggante mai couvre-feu ba ba août bi ñoom ñëpp amul kenn ku ci gaalam réer amul amul kenn ku ci gaalam këpp parce que la mer était stable l'océan était stable ñoom ñëpp a dem yegg ñoo ñu yegg nag ñoo woote te ñoo yegg ñu dëkkal leen ci ay tool ñuy liggéey di woote naan ñu ngi liggéey man sax jóge naa Espagne léegi maa ngi Italie jóge naa Espagne léegi maa ngi France affaire bi yomb trop ci ay deux cent cinquante mille ay trois cent mille mais fii mbëkk bi bu yegg ba boo fa doon dem boo amuloon cinq cent mille doo fa dem boo amuloon un million daanoo fa dem mais fi bi gis nañ ñu am 150000 ñu ngi Espagne ñu ngi ci îles yi ñu ngi Canaries bëri nañu ay jeunes ñun xam nañ leen am na ñu jaay fii seen cantine marché Dior 4 millions dem nañ ñu ngi Espagne am na. am na ñoo xam ne gis nañ leen ñu wallu leen France 24 ñu xam ne ñii parcelle lañ dëkk ñu xool toog seen leen ñuy nekk fii ambulant marché joor donc nañu bàyyi lu yomb lu yomb baaxul lu yomb ak ëppal baaxul waaw jamono ji nag jamonoy ëppal ku jóg rek ne day dem mais lii waa Guinée di def fii di am xaalis di ko liggéey bu ko doomu Sénégal yi defee dañuy liggéey da ngay dëkk ay xale nga leen kaa leen dem pavage di ngeen am 60 mille 60 000 di ngeen ko am yow xëyoo fenn fii nga dëkk si koñ bi ñu ne dañuy defar pavage koñ bi fee ngeen di toog di naan ataaya ñu ne leen kaa leen xëy fii ciment béton suuf ñu jàngal la métier da ngay am métier pavage boo ko mënee métier la produire teg nga ne defuma ko dafa metti du ko def loo bëgg fan la la président di joxe emploi fan la la maire di joxe emploi kaay bale sa tali koñ bi fin du mois bu nekk ñu jox la 54000 fukki junni nga ne bëgguma du ma ko def te benn diplôme fan ngay amee liggéey bu ma nekkee PCA ak léegi ñeenti weer la ku ma woon ne ma damaa bëgg liggéey port man la amul problème mais liggéey bi ëpp port moom ci biir port bi la ci bato yi ngay liggéey mais ñëpp bëgg a dem liggéey poor bureau non amul loolu bureau dafa am liggéey port dafa am liggéey bureau amul liggéey pour bureau loolu xaalis bi dugal ci réew mi port lay jege ci ceeb bi la ci feer bi la ci conteneur yi la ñu ëpp ñuy liggéey ci port bi foofu lañ nekk ku bëgg a liggéey foofu ngay ñëw ñu yóbbu la mais koo ko wax rek mun la déedéet man bureau yi laa bëgg bureau ban bureau ñun ñaa ngi foofu toog di xaar ñeenti at juróomi at kenn embauché gu leen depuis 2010. Euh, man maa ngi tudd euh, madame Awa Diop Ndiaye. Euh, dëkk unité 26 nekk euh, vice-présidente ci association des habitants de l'unité 26 et présidente de la calebasse de l'émergence de l'unité 26 aussi. lan nga ñu mën a bi moom lay def ci unité 26. bon association bi la. donc euh, ñun depuis ñu habité fii en 1992 ñu ngi ci unité bi association bi commencé fonctionner ci unité bi association bi mun nañu def tuuti rappel rek euh, bi ñuy ñëw ci unité bi canalisation amu fi woon ay fosse la woon ci kër yi à l'unité 26 mais président association bi ak les membres e habitants de l'unité 26 ñoo fexe ba ñu am canalisation ci kër yi nekk unité 26 yëpp actuellement am nañu canalisation association bi moo ko dox moo ko wax donc loolu bon jigéen ñi taxawaayu jigéen ñi comme taxawaayu góor ñi parce que actuellement monde bi dañ ko genré Euh, amul distinction entre góor ak jigéen ñëpp ñoo am taxawaay bu rafet mais xam ngeen ne dans le monde entier presque lépp loo xaman ne dañ koy def comme yëngatu femmes yi ñoo ciy ëpp euh, ñoo ci gën a active et puis ñoo ci gën a euh, bari ci mobilisation kooku moom jigéen moo ko am comme cër voilà loolu presque c'est un général mais sinon jigéen ñi vraiment ah ni ñu taxawee ci association bi ñu ngi ci côté góor yi euh, di liggéey comme ni ko góor ngi di liggéeyee ah defe naa ne man daal aw ma ci distinction que par exemple à part li ma leen wax léegi euh, ci part de mobilisation que ni les femmes en général sont toujours présentes ci yu mel ni ak yeneen réunion ñoo ñoo ciy ëpp en nombre encore les femmes ñoo ciy gën a def seen participation ndax ñun suñu calebasse de l'émergence bi aussitôt bi ñu wootee pour la construction de kii euh, du centre social bi nga xamal ne de unité 26 moo ko moom dañu jël une somme de 100 000 francs participer ko ci début construction yi kon nag vraiment ñi ngi sant yàlla bu baax ci taxawaayu jigéen ñi te aussi njaayum carte mi de jigéen ñi la te ñu ngi jaayee cinq mille francs revenu yi ñuy am aussi dañ koy defaat ci centre social bi ak yeneen soxla rek yu nekk ci unité bi kon taxawaayu jigéen ñi rafet bon par exemple lu ñuy ŋàññi au sein de l'association bon ñun ŋàññi ñu dara lu ma yëg ci association bi ŋàññu ma dara pourquoi parce que loo xamal ne on décide ensemble góor ñu décidé wu ñu bàyyi ñu comme ni ma leen ko waxee monde bi dafa toll foo xamal ne amatul distinction de genre donc ñun dañu genre par exemple man mii nekk vice présidente je suis au courant de lépp loo xamal ne rek de tout ce qui se passe. waaw kooku du question ñun dañuy ŋàññi association bi mais kooku ñun dañuy ŋàññ ñi nga xamal ne ñoo koy dugal ci réew mi ñi nga xamal ne ñoo koy indi di ko jox xale yi parce que xale ñëpp xam nañ ne xale dañ ko war a yar ñëpp xam nañ ne xale dañ ko war a teg ci yoon. kon kooku nga xamal ne mooy indi drogue bi ci réew mi kooku mooy source bi gën a am solo ñun kooku la ñuy attaqué directement avant ñuy attaqué xale bi koy utiliser dégg nga ndax xale bi koy utiliser dañu koy éduquer dañu koy yar pour tere ko lu bon aaye ko ne ko lii baaxul mu ràññee mais nañu euh, président dimbali ak ki nga xamal ne moom mooy autorité bi nga xamal ne moom la ko teg ci loxoom mu taxawuñu ba drogue bi ñu éradiquer ko ci Sénégal vraiment éradiquer ko bu baax a baax bañ ñi ko fiy dugal ñu génne leen ci réew mi sàngara bi nag comme ni ko monsieur le maire waxee dafa am yoon wu ñu koy defee dafa am yoon boo xamal ndax ñun pays laïque la ñu nekk kon nag ñu tegal ñu ko ci yoon wi aussi ñu bañ ko jaay ci école yi bañ ko di jaay ci lieu yi nga xamal ne xale yi dañ koy fréquenter xale yi bañ ko di utiliser ndax gisuma benn religion bu d'accord xale di def loolu voilà. bon immigration clandestine bi actuellement fi ñu tollu nii dañ koy regretter bu baax pour pourquoi ñu koy regretter avant ça ñu jaale ñi nga xamal ne seen njaboot génn nañ ci àdduna ñu ngi koy regretter de tout cœur ñu ngi koy lu parce que ñun yaay lañu. ñëpp xam nañ sensibilité yaay ci njaboot c'est naturel benn doom nga ñàkk ko dafa diis dafa métti te loolu ñi ko ñàkk ñu ngi leen di massawu bu baax ñu ngi wu seen waajur di leen vraiment lii lu métti la lu naqari la ci réew mi mais toujours rek ah, euh, euh, vraiment ñu ngi ñaax xale yi di xale yi nga xam ne ñi ngi ci réew mi génn guñu dugaguñu ci géej gi ñu ngi leen di wax bu ñu fa dugg xale yi bu ñu dugg ci géej gi di ko traversé di wuti dara fenn ñun sunu slogan ñun yaay yi mooy xale yi bu ñu dugg ci géej gi bu ñu traversé bu ñu dem ci benn réew tubaab ak yoon bu mu mën a doon yoon à risque ñu fa jaar di fa dem lépp lu dul légalité buñ ci tegu di ko def ñun loolu la ñuy dox tout d'abord pour nag le fait que ñu teg di ma ko jëkk a waxee rek ndax xale bi li mu xam bariwul dañ koy jàppale ñu jàppale xale yi ci formation ñu jàppale xale yi ci financement ñu jàppale xale yi ci possibilité ñu amal seen bopp entreprise mën a liggéey ak seen i morom parce que l'État ne peut pas embaucher tous les jeunes du Sénégal macha allah Sénégal pourcentage de jeunes bi dafa élevé pourcentage de jeunes diplômés bi dafa élevé kon nag ñu ñaan gouvernement bi vraiment mu am taxawaay boo xamal ne day jëm ci comme ni ko président de la république commencé ah. Euh, yàlla def na euh, man président Macky Sall la. damay dem si moom pourquoi parce que man dama buggoon président Macky Sall bi mu nekkee ministre de l' dañu amoon insécurité à l' unité 26 bi mu nekkee ministre de l' la insécurité boobu dañoon man ci laa nekk euh, xool Macky Sall ba bëgg ko ndax liggéey boobu mu liggéeyoon ci ministère de l' intérieur ba mu nekkoon ñu ngi ko maa ngi ko koy diisaat encore di ko gën a waxaat encore équipe yi mu yore na leen gën a ñaax ñu gën a sécuriser le Sénégal laay wax ba pare doog a wàcc sax ci insécurité bi doy na waar ci réew mi métti na te lu ko gën a yokk aussi c'est la drogue toujours dañuy revenir ci drogue bi ak alcool bi moo ak ñàkk xëy bi loolu moo gën a renforcer insécurité bi kon nag moom la ñuy man de moom laay adresser parole directement le président Macky Sall lu mu defoon bu mu nekkee intérieur na ko delloo siwaat pour que sécurité amaat et puis ñu yokk Euh, possibilité d'emploi yi donc pour les jeunes pour que jeunes yi gën a dal euh, y a des choses yoo xamal ne xam nga déjà fi ñu taxaw di wax discours rek ay jeunes ñëw nañu def fi loo xamal ne euh, bokkul ci éducation bokkul ci yar loo moomul bul ko jël xam nga loolu mooy insécurité lii insécurité la bu ma tegoon saak bi daf koy yóbbu donc lii du président mais man la man la parce que man maa jur doom bii fi def lii donc je dois l'éduquer à la maison à ce que du laal lu jàmbur aussi l'éducation de base des enfants dépend des parents voilà kooku moom si important parents yi nañ taxaw seen njaboot lépp du état man je contre sa ndax am na loo xam ne état munu ko xale bi li muy def ci xaleem ba ci magam defe naa ndeyam ak baayam am nañ ci taxawaay ndey yeeg baay yi nañu taxaw si njaboot gi yàlla jàppale ñu ci dëgg ñu ngi def mais nañ ko yokk yàlla jàppale ñu ci vraiment ñu def loo xamal ne dinañu dimbali ba xale yi vraiment bañ a dugg si euh, banditisme bañ dugg si gaal gi bañ def lépp loo xamal ne rek vraiment daf leen di indil musiba ndax yooyu yëpp musiba la yu jëm ci xale yi yal nañ ci yàlla musal yal na ko yàlla arrêté. waaw d'accord damay sant damay sant d'abord euh, président Dieyte ak association des habitants de vingt 26 ci invitation bu ñu ma defal ma ñëw fekkee seen assemblée générale boo am solo bi nga xam ne tey mooy def seen bilan si seen liggéey bi nga xam ne def nañ ko. ci at yi ñu génn mu nekk lu am solo ñu doxal quartier bi ci wàllu éclairage ci wàllu sécurité ci wàllu hygiène publique ci wàllu école ci wàllu santé ah ak ci wàllu nekkuwaay ak dëkkaay donc loolu nag dafa am solo ma leen di féliciter di leen encourager parce que yoon bi ñu jël noonu la bu ñu quartier defee nii liggéey bi day yomb si ñun maire donc loolu ñu koy sali félicité di félicité waale waa HLM Grand Médine parce que loolu ñuy def ñu ngi koy def di rafetlu aussi taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci quartier bi ci wàllu hygiène publique mais surtout ci wàllu sécurité parce que bu may def zéro déchet fii laa ko lancé président waxee ñoom ñëpp teewoon nañu ñun ñoo bale quartier bi boobu ba léegi am na suivi xale yooyu ngeen toog yëpp ay agent lañ ci quartier bi lañ ñu koy am ñoo xam ne dañu xeeb liggéey parce que tollatuñ jamono bu ñuy xeebee liggéey nit lu mu xi yow war ko mun mun ci fortaatu di ko yóbbu këram di ci dund waa këram di ci dund mais loolu daf ko war a jàpp bu gisee lu gën nag mu bàyyi defi loolu mais munuma gëm ni jël gaal jël ay pirogue pour deux cent cinquante mille pour trois cent mille pour cinq cent mille naan yaa ngi dem defi ambulant Espagne wala Italie wala dem ci ay tool te xamoo loo fay def te foofu neexatul dafa metti dafa tar loolu du solution gaz baa ngi ñëw pétrole baa ngi ñëw loolu yëpp ay liggéey la nañu formé wu nañu am ay formation diplômante nañu am métier ñu préparer dugg ci liggéey bi financement yaa ngi fii nañu ñëw ñu gunge leen encadré leen bu amul nag ñu xam ne amul boo kenn du am kersa taxaw ne amul mais li bon mooy bëgg lu yomb lu yomb baaxul donc beneen bi mooy jëm ci wàllu stade bi incha allah ministre bi jox nañu engagement 45 jours yi di ñëw début janvier incha allah dinañu ubbi stade bi jox ko jeunesse Parcelles Assainies drogue bi wax naa ko yamba bi bëri na fi jakarta bi bëri na fi boo demee ci collège yi xale yaa ngi naan ñu ngi tox loolu jaaduwul donc loolu moo tax ma ñaan population yi parent yi ñun ñëpp ñu jàkk suñu police doom ñu nekk suñu alkaati suñuy doom téye leen di leen xool di ubbi seen saak bu ñu wàccee di leen seet parce que loolu bu ñu ko deful bu yàggee mun na leen yóbbu te loolu baaxul incha allah